bul faté abonné da nga bëss kolos bi ngir vidéo yi duggal nga man ci jot أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذرون mbokk yi wa rahmatullahi taala wa nabi sallallahu alaihi wasallam sallam di nuyu mbokk yi nga xamné ñi ngi ñuy bàyyee xel fu mën a nekk ci aduna bi mo xam ñi nek ci réew mi wala ya, ñi nek bitim réew ñepp ñi ngi leen di jaajeewal te di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah di la wax yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi bu fekkee ne abonné koo ci seen bi nga abonné te partage vidéo yi mu gën a yaatu ndax vidéo eh, yi ay vidéo njëriñ kese la te njëriñ moom lu mu gën a yaatoo rek ci la gëne te nag mbokk yi dañ leen a fas yéene indi benn secret boo xam ne secret noob la ñu secret noob bu am am solo di secret noob boo xam ne bu fekkee ne am na nit koo xam ne yàlla def na ak cofeel ci seen diggante ngeen nekk am procès de ngay bañ mu génn ci say loxo secret bi boo ko teewloo bu baax rek defe ko ni ñu ko waxee insha allahu rabbi kooku noonu mën naa bañ a génn ci say loxo garab daal li ko tax a jóg mooy képp koo bëgg a sayal boo ko defee rek insha allahu rabbi suñ borom mën na dogal mu nekk sa soxna muy secret boo xam ne bu ama am solo la defal nañ ko ay nit lu benn du ñaar alhamdulillah mboolem nit ñi nga xamanteni sakku nañ ko ci ñun ñu defal leen ko ñëpp rek suñ borom def na ci tawfeex ba seen digënté ma ngay dox di ñaan yalla saxal digënté ba def ci ak njaboot barkel di defali ab fatali bu neew rek ci mbokk yi nga xamni ne ñoom mujjee ñëw koo xam ne go ci seen nga abonné tay partage video mu gëna yaatu ndax video yi kese la di wax yow mi nga xamne da nga bëgg ku la defal di foo fo mëna nek ci aduna bi boo ñu contacté ci numéro bi rek muy 77 684 28 28 boo ci contacté rek insha allah rabbi des na la defal di listixaar bu leer nañ képp ko xamne da nga bëgg ku la defal ñaan insha allah rabbi bon ci contacté rek dees na ci dimbalé bu baax a baax baax ci walu ñaan walu ñaan nak ñu bari ñuy faral di laaj ndax da ngeen di yëngu ci walu ñaan mbolem lu xéetu ci lasraar ci walu ñaan rek dañ ci yëngu képp ko xamanteni am gitu nga yitté ci walu ñaan insha allah rabbi bon ñu contacté rek des na la ci def dimbalé defal ci ak jappal bu baax baax insha allah rabbi mbokk li nga xamne dañuy dañuy wo jaar yi jaar yi disponible at na képp ku ci wo rek mën nga ñoo contacter mbokk yi nga xamne dañuy dañuy wo garabu kàttan bi mooy garabu musxam garab yi disponible na lépp ko xamne soxla nga ci incha allah rabbi boo ñu contacter rek de foo mën a nekk ci àdduna bi dinañ fexe ba nga jot ci incha allah rabbi kon mbokk yi dañu fas yéene ñëw ci yéen ñëw ak yéen ci secret bu am solo bii muy benn bayit bu ne ci burdu ak benn aaya alquran bu tedd muy secret boo xam ne nag di ñuy waxtu su rek koo narut a takk bu ko ko def li ma koy waxee toujours ci wàllu nopp duma dañ ci di ko baamu ndax dafa am lenn ci nit ñi ñoo xam ne nopp bu mu koy def dañ koy def ngir top sen bakkan rek ñu di leen xamal ne noob képp koy def ngir top sa bakkan rek mën na la dikk ak tëju ba doo mën a am dara mën na la dikk tamit ak gàtt fan kon nañu ko moytu noob képp ku koy def nang ka def ngir ne sama soxna si dañoo nekk waaye jafe-jafe dafa bari wala nga ne kii dañoo nekk li ma yéene ji ma am ci moom kat mooy mu nekk sama soxna ragal naa nag di bu ma ko deful mën na génn ci samay loxo yu dut yi daal képp ku ko def xamal ne yaa ngi ci dansé li tax ñu koy wax nag mooy lii di noob ak xaar képp koo xam ne danga koy faral di def mën na la tëj mën na la dikke ak gàtt fan moo tax nañ ko moytu bu baax a baax a baax waaw mbokk yi baytu burdu bii ñuy wax fa kayfa tunkiru hubban baadama saxidat bihi alayka xuduudu dam'i wa saqmi ak aay bii ñuy wax watafati saaqu bisaaqi ila rabbika yow mooy almasaaq mu bind boo bindee fa kayfa tunkiru xubban baadama saxidat bihi alayka doolu wa shaxami watafati saaqu bisaaqi ila rabbika yow mooy seen almasaaq nga bind ko nii bindee nii ba soxna si nga xam ne wala góor gi nga xam ne bëgg ngaa sëyi ak moom boo bindee lii ba pare da bind bindu turu ku góor ki walla turu ku jigéen ki bindu turu yaayam bindu turu baayam nga bind ko boo ko bindee boo paree dangay ngay xool kër ga nga xam ne ku góor ga fa la dëkk wala ku jigéen ka bu ko defee nga suul ko fa insha allah rabbi secret bu wer la boo xam ne boo ko defee noonu rek insha allah rabbi kooku lu man di xew di nga sëy ak moom insha allah rabbi am naa kon tey fii dañuy yem ak yéen ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci suñu beneen secret yu am solo yi di leen wax bu leen fàtte di abonné ci seen bi tey partage vidéo yi mu gën a yaatu ndax vidéo yi kat ay vidéo yi njëriñ kese te njariñ moom lu mu gën a yaatoo rek ci la gën a di la wax yow mi nga xam ne da bëgg def lu listixaar mën nga ñu contacter ci numéro bi incha allah rabbi dees na la ci dimbale bu baax a baax a baax yow mi nga xam ne da nga bëgg garabu kàttani muy garab musxam yi disponible na boo ji ittewoo rek foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga ñu contacter wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa jër a ngeen jëf bul fàttee abonné te nga bés kolos bi ngir vidéo yi ñu dugal nga man ci jot